loolu ko ma ko bëgg a fees. rang rang rang rang. xale am nga du problème. ma fi yaa bilaahi. barke Alxuraan. bilaahi. ñu toog si koom kër Dakar mu naan des des. am ñaanu mel na. bilaahi xalaat ñaaxa la affaire bu jeex. bilaahi walaay dërëm. ah. mbër. bilaay. bilaay. loolu ko am bëgg a feeñ. rang rang rang rang. xale am nga du problème. bilaay. barke Alxuraan. bilaay. ñu toog si kaw kër Tataru mu naan bés bés. am ñaanu mel na. bilaay xalaat ñaaxal affaire bu jeex. bilaay walaay dërëm. Ah, iyone nana meci yesune wali njay bododo ka iyone wagno sire wongor ke cunga xama jabil ka won mate wagno sire wongor ke cunga xama jabil ka won mate wagno sire wongo wongor ke cunga xama ma jaabil ka woon ma te fowara tata ka bule bule anga laa bëgg bëgg mbëri wax kii laa bëgg anga bëgg liggéey di am xaalis comme ça mbooloo mi naa la boole Pa Modou Fa Pa Modou Fa Pa Modou Fa waaw waaw directeur Lampour waaw ah, eh, eh, xamante ne mooy borom Diourbel fu wul nag dem naa ci mairie bi du ko xool foofu gisuma directeur Lampour waaw ko booku ndaw yu bëree bëree bëri ma leen wutal liggéey loolu liggéey nekk nekk nekk aussi njaareem di fa liggéey liggéey bu am solo loolu dégg naa ko li ma yëpp Diourbel kenn defu ko fa directeur yi nag Diourbel yëpp Pape Modou mooy seen directeur ñoom te te dégg naa parce que c'est quoi nga bay seen wéy tànn am nañ liggéey liggéey moo xam fu la di ngay même yow ni nga ni nga mel nii sax xalaat li nga mel nii. ah dof. foo waat tata ka bule. Mhm. bule. ah laa kii laa bëgg. maa bëgg liggéey. di am xaalis comme say mbooloo mi. naa la boole. Pa Modou Fa. Oh. Pa Modou Fa. Pa Modou Fa waaw waaw. directeur l'emploi. ah, eh. ah eh, xamante ne mooy borom Diourbel. fu wul naat dem naa ci mairie bi du ko xool foofu gisuma. directeur l'emploi ku. booku ndaw yu bëree bëree bëri ma leen wutal liggéey loolu liggéey nekk nekk nekk aussi njaareem di fa liggéey liggéey bu am solo loolu dégg naa xam li ma yëpp Diourbel kenn defu ko fa directeur yi nag Diourbel yëpp moo Modou mooy seen directeur ñoom te te dégg naa parce que c'est quoi nga bay seen yooyu waaw dégg naa Diourbel nekk Diourbel am nañ liggéey liggéey moo xam fu la di ngay même yow ni nga ni nga mel nii sax alaamel 你那边绿啊？